te dinaa leen fay lu jaadu ñu dem ca mu génnaat ci digg bëccëg ak ci tisbaar defaat noonu mu génnati ci tàkkusaan gis ñeneen di tendeefal mu ne leen lu tax ngeen yendoo tendeefal te liggéeyuwu leen ñu tontu ko kenn jëlunu mu ne leen dem leen yéen itam ca tool ba bi nga xamee ni timis jot na boroom tool ba ne jawriñ ja wawal liggéeykat yi te fay leen seen bëccëg tàmbali ci ñi mujj a ñëw ba ci ñi fi jëkk noonu ñi mu jël ci tàkkusaan ñëw ku nekk jot posetu denariyon gannaaw ga nag ñi mu jëkk a jël ñëw yaakaar ni dinañu jot lu ëpp loolu waaye ñoom itam ñu jot ku nekk benn denariyon bi ñu ko jotee nag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 li ma la fay yow ndax sañu maa def ak sama alal li ma neex walla ndax danga am ki ñaan ci li ma yéwén noonu ñi mujj ñoo jiitu ji ñi jiitu ñooy mujj ginnaaw loolu yéesu di dem yerusalem ànd ak fukki taalibe yi ak ñaar noonu mu wéetoo ak ñoom di leen xamal ci yoon wi lii ñu ngi jëm yerusalem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 ginnaaw loolu yéesu génn yeriko te mbooloo mu bari topp ko fekk ñaari gumba toog ci wetu yoon wa bi gumba ya déggee ni yeesu di jaar ñu daldi yuuxu ne ko sang bi yow setu daawuda bi yërëm nu waaye nit ña gëdd leen ngir ñu noppi teewul gumba ya gën a yuuxu naan sang bi